dajee di def opération désencombrement ci artère bii nga xam ne tali Mbaye Gakou prolongé lañ koy wax nga xam ne tali la boo xam ne état bi ay xaalis bu bëree bari la ci def des centaines de millions ba mu ko defaree ba léegi oto musu si daw am ay nit ñi ñëw ci seen coobare bopp nekkal fi seen bopp loolu nag mu nekk lu ñu mus a naqari naqari population bi tey nag ñu am ci saafara mu nekk un grand ouf de soulagement

yoo xam ne nii moom mooy surface bi nga xam ne moom lañ daggoon 1976 bi ñu fi taxawal marché bi loolu ñëpp xaj nañ ci ñii ak ñeneen ñu dul ñoom sax xaj nañ fi ñëpp nag incha allah rabi dinañ jàkkaarloog ñoom ngir ñu mën a des ci biir marché bi ndax loolu mooy dëgg. marché bés président mu boobu mu ngi avancé bu baax ndax ku ne xam na ne projet état dafay jël temps ndax ay procédure la am ay waxtaan yoo xam ne aussi da ko war a lal yàlla dogal na waxtaan nañu ak kilifay marché bi particulièrement délégué yi ak ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey ak mairie bi ak préfecture ñu waxtaan ci plan yi waxtaan ci maquette yi ba loolu yëpp validé nañ ko li dess nak moy ñepp xam nañ ne mbass mi bi mu yegsee Sénégal dafa am lu bari lu mu lu mu changer ci lañu ñu ak programme yi ñu tegoon fas yéene ko def xamna buñ ci génné ci jamm ñaan Yalla muccël ci réew mi yëpp inshallah allah rabbi dinañ fi dajé dajewaat dotul yàgg ngir def li ñuy wax pose première pierre te loo xam président de la république mom ci boppam moy ñëwul boppam voilà loolu aussi euh, occasion la ndax tambali nañ ko depuis barki démb muy euh, masque pour tous à Pikine dañu bëgg population bi ni ñu kenn ku ci nekk ju dox ba sa kër yëkkatiloo loo jox la ko yàgg sa njaboot parce que ku ne xam na ne Covid bi mu ngi def ay ay jéeya mais kaa communautaire yi mu ngi gën a jommal nit ñi te cas communautaire yooyu bokk na ci xëy na li ñu ci mën a musal moytu bi mooy masques yi ñu fexe ba port masque mu doon lu ñuy généraliser. fii ñuy wax ak yéen ni distribué nañ lu toll ak 2000 masques yoo xam ne distribué gum ko ñu ngi fas yéene woon fii si marché euh, syndicat ginnaaw bu ñu defee opération bi ba marché bi tegu ci raay ña war a nekk ci biir nekk ca biir incha allahu rabi ñu dugg ci biir marché bi def distribution de masque ba nga xam ne koy jàkkaarloo ci population Pikine Est di nga fekk mu yore masque am ngir mun a aaru ci jàngoro ji.